nooy jëfandikoo mbir yi objet yi ak bagage yi nga am jàngal nooy jëf noo koy jëfandikoo te boole ko bëgg nit ñi moo gën ngay jàng nooy bëggee mbir yooyu noonu di jëfandikoo nit ñi euh, xam nga nit ñi am na ci ñoo xam ne matériel àdduna bii nii moo leen gënal doomu aadama ci boppam euh, doomu aadama joo leen gis ñu ànd ak moom ñaara rek bëgg ko exploité moo leen ca bàyyi jariñoo ko ba mën leen andil ay matériel euh, matériel yi nga xam ne moom la leen di defaral wala yu ni demee moo leen di gënal nit ki ci boppam da nga koy seetlu ci ñenn ñi nga xam dañuy liggéeylu comme ab ouvrier booy liggéeyloo dara moo xam nit ku am métier bu mu yore la nga di ko ca liggéeyloo dara ñaare ni ngay jëflanteek moom ku am seetlu bu xereñ day xam ne yow sa matériel bii ngay defarlu moo la gënal nit kii nga koy defarloo euh, kon mooy nit ki yow doy woo ko lu muy jëfandikoo rek waaye mu ne nag loolu baaxut li baax mooy nga xam ne lu mën a xew bagage yi ay bagage dong la waaye doomu aadama ko gën a foor moo ko gën a tedd su ko defee nag nga jàng nooy def bu bëgg doomu aadama ji waaye xamit nooy jëflante nooy jëfandikoo bagage yooyu nga xam ne moom nga am moo gën ngay bëgg bagaas yi e, di ko boole jëfandikoo doomu aadama yi mu daal ne la nag bari na loo xam ne rafetoon na lool waaye ay jikko moo ko ñaawal mooy jikko yiñ ca jëfle jëfandikoo moo ko ñaawal waaye noonu la amee it loo xam ne lu ñaawoon la waaye jikko ñëw rek ngir jëfandikoo ko mu daal di rafet loolu li bëgg a wax rek mooy kon lu baax jikkoo ko baaxal waaye lu bon it jikkoo ko bonal jikko nag nekkut ci ay bagage waaye ci nit la nekk kon nit ki nga fonk ko moo gën ngay fonk ay matérielu kese te nit ki boo ko amee te amee kon na nga ko war a amee jëflanteeg moom nanga ko war a defee mën naa dem ba jural la ay matériel yu baree bari yu dul jeex te du tee nga des sëg nit bu dee nag matériel yi dalaa gënal nit ki ba nga tax nga ñàkk nit ki matériel yooyu yàgg-yàgg da nga koy ñàkkaat su boobaa ngay doog a wëriwaat fooy jëlee ak nit te du tax mu yomb la kon loolu la ñu xikma bi doon indil tey ñu ngi sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamualeykum wa rahmatullah